dërsu tey bi wala xutba tey bi dañ koy tàmbale ab laaj ab laaj boo xam ne dañ koy laaj kenn ku nekk ci ñiy dégg kàddu gi yow miy dégg kàddu gi dama lay laaj ab laaj laaj bi mooy fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor ñu tudde ko al ashrul awaaxir ndax fukki fan yooyu xam nga lu mu lu mu doon dëgg-dëgg ndax xam nga lu mu doon dëgg-dëgg loolu mooy laaj bi ndax xam nga ni fukki fan yooyu ab occasion la walla fursa bu mag a mag a mag a mag bu am doole lool occasion la boo xam ne man nga cee amee yërmande yàlla subhanahu wa taala boo ko sakkoo man nga cee amee njéggaluk sa borom yàlla bu fekkee xam nga nuñ ko ciy sàkkoo te sàkku ko man nga amit wërsëgu bokk ci ñu yàlla goreel ci safara yal nañu ci yàlla boole yal yàlla boole ci ñi goreel ci safara kon bokk fukki fan yu mujj yi ci weeru koor mu ngi noonu kon di occasion bu am doole di fukki fan yu mat a bàyyi xel di fukki fan yoo xam ne occasion la bu rëy pour am ci kër ci aljanna mbokkum jullit nii ndax bëgg kër ci aljanna yàlla day jaay këram ya ci aljanna yàlla yàlla boole ca ña am kër kër ci aljanna aljanna moom mooy kër gi nga xam ne boo fa duggee boo fa amee kër boo fa duggee suñu borom yàlla day dana waxloo aji wax mu wax ay kaddu yu neex a dégg déglu leen kaddu yooyu ñu ne ko ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñett lee kaddu ya mooy lan waay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na bu waa aljanna ñépp demee aljanna ba kenn ku nekk nekk ca këram nee na dana am ku wax ay kaddu yoo xam ne sa boroom yàlla moo koy waxloo day wax mi yéen waa aljanna seen kër yooyu ngeen nekk man ngeen fee nekk ak wér gi yaram seen xel man naa dal ci ne ak wér gi yaram ngeen fi nekk te du ngeen feebar mukk këru aljanna kenn du fa ne di feebar te itam da ngeen fi nekk te duutu leen dee mukk aljanna ku fa xas dugg dootoo dee te itam da ngeen fi nekk ci ak ndaw te duutu leen màggat mukk na ku fa nekk da ngay nekk ci diggu doole te dootoo màggat te itam ci lu neex ngeen di nekk du ngeen gis du ngeen déggul leen naqar mukk mukk mukk yooyu kàddu moom la sa borom yàlla di wax loo aju wax mu wax ko ñu dëkke aljanna yal na yàlla boole ci ñuy dégg kàddu yooyu te fekk ci suñuy kër kon boog kërug aljanna ngoog kërug aljanna ngoog yaakaar naa googu kër kuñ ne kaay ma jaay la ko nga war a làmb sa poos mbaa sa gafaka am nga dara waaye nag kër googu lu muy jar kër googu lan la ko yàlla di jaaye jéemal a xalaat balaa ngay jéem a xam lu ko yàlla jaay jéemal a xalaat ba xam yow kër googu lu mu war a jar kër gu mel noonu kër goo xam ne boo fa duggee yooyu mooy am kër goo xam ne boo fa duggee da ngay nekk ci wér-gu-yaram dootoo feebar mukk te da ngay dootoo dee mukk te nekk ci sa diggu doole dootoo màggat mukk te itam dangay ngay nekk ci lu la neex dootoo gis la naqar doo ko dégg ci mukk moo kooku kër moom ku ñu ko jaay nga dëkk fa moo bëggu kër moom ñaata la war a jar xaymaal leen ma ko waaye bala nga koo xayma bala nga koo xayma jëkk maa xaymaal soo bëggoon a jënd kër gu mag gu gu gu moderne ci ndakaaru ci digg ndakaaru ci Dakar Plateau Dakar Plateau nga xam ne mooy fi gën a euh, foor ci ndakaaru ci wàll fooraayu àdduna soo fa bëggoon na jënd ak kër goo xam ne day nekk kër gu mag goo xam ne lépp da cay ne te gu moderne lay doon te gu rëy lay doon te lépp rëy na ci kër gi lépp mu nit ki mën a soxla ci dundam da ko fay da ko fay am ñaata la war a jàpp wala sax ñu dandatu ba ca France dem ca Paris capitalu France ñu dem ca Palais Élysée bi nga xam ne mooy mooy mooy fa président France dëkk ca wetu pale boobee ku fa bëggoon a jënd kër gu mag gu moderne goo xam ne lépp dafay ne wala nga dem ba ci New York nga dem ci benn ci avenue yu New York yu mag yi nga bëgg faa jënd kër gu mag gu goo xam ne day moderne te lépp day ne ci biir kër gi moo ñaata nga yaakaar ne moom ngay war a joxe waay ndax doo làmb joxe ay millions yu bari ah kay ndax juróom fukki million mën na koo jënd ndax juróom benn fukk mën na koo jënd ci ay millions déedéet njëgu googu kër ëpp na loolu lépp montin googu kër de boo ko jënd du tee boo fa duggee da ngay feebar du la mën a sànqal mukk feebar yu bari yi nga xam ne moo xew suñu jamono ji kenn ku nekk ci nun mu nga ak lu muy tawat ñii dañoo yor tension ñii dañoo yor jabet ñii dañoo am lu ñuy wax cholestérol ñii dañoo am lu ñuy wax arthrose ñii dañoo yor rhumatisme seen i yaxagee metti seen sidit di ruux moo xeeti feebar yi ndax mën naa koo lim lu sa kër fort fort ci Dakar Plateau wala ci xasru Élysée ci ci Paris wala ci ci New York lu sa kër fort fort nga nekk fa ak ay feebar te doo ci man dara feebar yoo xam ne bu ci ab docteur fajaloon benn sax bu wéree ñaari feebar koy remplacé feebar bu wéree ñaar remplacé te feebar yooyu buñ dee ñëw day mujj yaag ñoom ba màggat ñëw màggat nag moom mooy feebar bi nga xam ne bu ñëwee moom mooy feebar bi nga xam ne amul amul saafara du wér mukk te màggat du wér mukk feebar boo xam ne du wér mukk te bis bu ne dara dolli ko te bis bu ne mu gën fee metti mooy feebaru màggat moom daal du te bis bu ne mu faa metti te bala mu laa bàyyi kat jébbal la malaakam de màggat may feebar bi nga xam ne bu la dale bis bu ne mu yokk kenn mënu ci dara te bala moo tàggoog yow dalaa teg ci jàpp nga wuy sa borom yàlla subhanahu wa këru adduna lu mu foor foor mënu laa tàggale benn ci feebar yooyu këruk ak këruk adduna moom noo mën a def rek am ay feebar noo mën a def tam am ay problème ak ay stress noo mën a def tam da nga wu kër gi ak euh, weer wu ne nga def ci nangam million boo sàgganee te du sotti te doo fa nekk jàmm këruk aljana nag moom da fay nekk ci wér gu yaram te doo feebar mukk te da fay nekk di dund te dootoo dee mukk te da nga fay nekk ci waxambaane ak doole te dootoo màggat mukk te itam da nga fay nekk lu la neex dootoo dégg lu la naqari mukk noonu la kërug aljanna mel ma bàyyi leen ngeen xalaat xam lu mu war a jar ma bàyyi ki war a noddu sawal mu noddu sawal ñu continuer insha allah salaamaaleykum waaw kon aljanna noonu kër moom boo ko fa abee boo fa dëkkee wér-gi-yaram te dootoo feebar mukk dund te dootoo dee mukk nekk ci ndaw ak waxambaane te dootoo màgget mukk nekk ci lu la neex te dootoo déggul la naqari mukk baa nga di ko gis aha ma bëggoon nag yow may déglu nga seetal ma ba xam kër gu mag gu moderne gu rëy ci Dakar Plateau wala ci France ci Paris ci ci New York ci digg New York boo fa bëggoon kër gu mag muy jar nangami mil million lu toll nan nga war a joxe ci sa doole pour liggéey moo xam doole xel la boo xam doole yaram ca barab ba ngay liggéeyee moo xam ab commerçant nga moo xam ab baykat nga moo xam loo mën a doon ñaata ngay frais sa doole sa kattanu yaram ba kattanu xel pour mën a am nangami fukki million ñaar fukki million juróom fukki million nangami million yow mën a jënd ak kër ci Dakar Plateau mbaa ci Paris ci euh, wetu Palais Élysée nangami million yi nga war a jënd ñaata ngay liggéey ci jamono pour am million yooyu <clears throat> pour mën a jeex njëgu kër gi seetal mba xam ñaata million la war a doon aha su ko defee nag nga déparé foofu seetal ma kon kërug aljanna moom ñaata la war a jàpp te man mënumaa wax ay millions mënumaa wax ay milliards mënumaa wax ay multi milliards ndaxte benn benn centimètre carré ci aljanna benn centimètre carré ci aljanna mboolem li ci li ci banque yi ci monde bi yëpp ci xaalis ak ci or jënd ko benn centimètre carré bi kese waxuma mètre carré waxuma nag at pakkuus waxuma laaj benn néeg benn centimètre bu bu bu koñ carré nga xam ne matul genn walaatu ceng li am ci adduna bi lépp ci or ak ak ak xaalis ak ay ak ay gànjar mënu koo jënd li ma ta bàyyi xel yow may déglu mooy nga xam ne loo sonn sonn sonn ci wut kërug adduna loo mën a daj ba am ko ci ay kër amal ay kër yu bari ci adduna bul am genn kër bul am ñetti kër bul am ñaar fukki kër amal téeméeri kër ci adduna lu kër yi bari bari bari lu wata yi bari bari bari lu xaalis bi bari bari bari da nga xëy ñàkk lépp lépp nga xëy ba ko fi mboolem loo mën a am ci alali adduna ci ay ganjara ci wataa ki fasa ki ak ak ak ak i naga ki mu bari bari bari bari ak i kër da nga xëy ñàkk da xëy perte lépp kañ xanaa bis malaakam ngay ñëwee bis malaakam ngay ñëwee yow may déglu salal ba nga tëdd daañu la ko wàcce sa néeg bi nga xam ne yaa ko tabaxoon moom ko daañu la ko génne man na la kilay sang damaa jël leen bu mi nga sol dana ko jël waaye montar bi nga takk ak jaaro loo xam bi sax du la ko bàyyi dara la bàyyi xam nga nu mu lay defa dalay summi ba nga ne wung mu sang la sab ay meetari tissu yoo xam ne mooy tissu bi gën a yomb ci tissu yi lëmas la ko gas ba nga xóot mu su ba mu xoot mu suul la ci doo yóbbaale dara dara dara ci alali adduna loolu mooy bi am aha su ko defee buñ la gas buñ la suulee ci sa bàmmeel sa kër ga nga dëkk woon nga bàyyee ko ñeneen dëkk ko ñoo xam ne jënduñu ko woon sa jabar ji nga takkoon ma ngay dem ci yeneeni góor yu dul yow mbubb yi nga soloon sax ñeneen a koy sol ñu bokkut ak yow loolu mooy li am ah loolu li muy tekki mooy dëgg dëgg yooyu da koo moomul woon da nga koo moomul woon kër gi nga dëkke moomoo ko lal bi nga tëdde moomoo ko mi nga sol moomoo ko wata gi ngay war wala fas mbaam bi moomoo boo ko moomoon doo ci génne noonu boo ko moomoon doo ci génne noonu ba nga amee ca banque ba ab compte def fa ay million bis boo génnee àdduna bu ay nit demee di jëli millions yooyu deetu leen wax lu dul indi leen firnde ji wala na dee na duñ ne mukk moo ko mi defoon dañ ko koy dencal mbaa ñuy bul ko yawmal dañ naan indi firnde ji wane na dee na soo indee certificat de décès ñu jox la millions yi yëpp kon kay yow da nga koo moomut da ngaa moomul nga sol moomoo montar bi nga takk moomoo lal bi ngay tëdd soo ko moomoon dee su ko donn ci yow nit a koy jël koo xam ne joxu la dara te da koy jël te moom it dees na ko donn ci moom nit a koy jël ci moom koo xam ne joxu ko dara ba keroog alal jëpp di dellu ci benn buur bi nga xam ne moom moo sàkkoon lépp te moom moom lépp te mooy alwaaxidul qahaar kon boo kër gi nga jënd ci palais ca wetu ca wetu ci biir Dakar Plateau wala nga jënd ko ca ca ca ci wetu palais Élysée ca Paris kër googa munoo moomoo ko te munoo fexe ba moom ko ñax bi dëkk na ko noonu moomoo ko te moo munoo fexe ba moom ko xam nga loo moom dëgg dëgg dëgg li nga moom dëgg dëgg mooy li nga def ci ay jëf yu yiw ay jëf yu baax ay jëf yoo xam ne dëppoo naag santaane borom asamaan ak suuf jëf yoo xam ne dëppoon na ak li saydina muhammad andi alayhi salaatu wasalaam muy alquran ak sunna la nga ci ay jëf yu dëppoog loola mooy li nga moom dëgg-dëgg loola kese moom nga yóbbaale si biir bàmmeel loola kese moom nga yóbbu yawmal qiyaam aha li nga moom dëgg dëgg dëgg jéego yi nga jéggi ñëw ci jàkka ji ànd ak mbooloo mi julli julli farata loola day moom malaaka yi daañu ko bind kenn mënu caa jot te kenn du ko jël kenn du ko donn yaa ko moom bi ñu jullee gee ba noppi nga fekk julli farata ji ànd ak yilimaan yilimaan eh, eh, naafila ji ñëw nga ànd ak moom naafila ji taxaw di ju di rukkoo ko su malaaka yaa ngi koy bind loolee malaaka yi bind yaa ko moom te kenn du ko jël naafila gi jullik farta gi ca mbooloo ma koor bi nga koor ci bëccëgu weeru koor njàngum alquran bi nga def zikri bi nga def qiyaam bi nga def jëf yu yiw yi nga def mu dëppook alquran ak sunna loola mooy li nga moom dëgg-dëgg aha moo tax suñu borom yàlla wax ci alquran ne almaalu walbanuuna zinatu alxayaati dunia yàlla ne alal yi ak doom yi mooy taaru adduna waaye nag da dul des ci say loxo yow ñu ko yor dang koy wacc mu wadd nan for ko yow nga dem dem ci sa bammel yobale fa jëf yey def al baqiyatu salihat jëf yu yiw yi nga xamne yu bax lañu te dañuy def ci sa loxo nga mom leen te moy jaamu yàlla yi yàlla nungu lolé xayrun inda rabbika sawaban yol ba tay bayiko lolé moy la bax mooy la la jëra xante woo mooy la jëra wut wa xayrun amalan te itam yow mi nga xam ne yow li ngay génte mooy ab xaalis li nga bëgg di ko ñaanlu foo tolle mooy xaalis bu bari li nga bëgg mooy ay wata li nga bëgg mooy mooy mooy jekk bu adduna loolu doonul gën ji lu ñuy bëgg ngën ji lu ñuy bëgg mooy jaamu yàlla ya nga def te mu dëppoog alquran ak sunna sa borom nangul la ko dencal la ko ba yowmal qiyaam loolu mooy ngën ji lu doomu aadama di mébét yal nañu yàlla may suñu xol nekk ci jaamu yàlla te yàlla may ñu tasbiq ñu jaamu yàlla te yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla te itam suñu borom yàlla yow jullit bi yàlla terewula nga nga liggéey pour am kër ci àdduna déedéet yàlla terewula loolu yàlla néew la bul liggéey pour am kër ci ci ndakaaru mbaa ci foo ko mën a am waaye nag yàlla joxu la ndigal te daganalu la itam nga dem gi toppatoo kërug adduna lu ëpp li ngay toppatoo kërug àllaaxira da nga war a xam ne ñaari kër yi kërug adduna ak goog àllaaxira wuute nañu te li ñu wuute wax naa ci lu tuuti te li ma ci wax tuuti la di kër boo fi nekkee goog adduna gi da ngay da ngay deele da ngay ñàkk da jaaxle feebar yi day bari lool bis bu ne nga am lu ub sa bopp bi te bu ubbi ko bu ci kremé leen ñëw ubaat koo ci te balaa yàgg nga dee ko fi te booy dem doo ko yóbbaale doo yóbbaale dara dara ci alal yi ne ci kër gi dara àllaaxira nag moom kër ga kër kër gën fay am bu fekkee am nga ko ci aljanna boo fa duggee dootoo dee mukk da ngay dund dootoo dee dangay ngay wér dootoo feebar da ngay nekk ci waxambaane dootoo màggat da ngay nekk ci lu la neex doo dégg la naqar doo ko gis kon ñaari kër yi xam ngeen ne wuute nañu bu baax moo tax suñu boroom yàlla ci alquranul karim daf noonu leeral ne bañul nu wut kërug adduna bu nu neewul nan fàtte adduna waaye nag nan jiital ci sunu ittewoo nan jiital wut bu nuy wut kërug allaaxira loolu la nu yàlla jox ndigal te loolu tam xam ngeen ne moom la am xel mu sell nangu ñaari kër yi ku gis ni ñu wuute xam ne ku leen di wut ñoom ñaar ñëpp waroo leen a yemale te kat ñemaguma ci diir bi ngay am ci kër gu ci ne ndax kër gi nga kërug àdduna gi moom li nga fi am xanaa doo fa am juróom fukki at ndax bala ngaa am kër googa mos xanaa di nga di nga di nga nekk borom fanweeri at mbaa borom ñeen fukki at te boo amee juróom-ñett fukki at te dund noppi naa neex ndax foo toll daraa ngi mbékk ci yaram bi te bis bu remis dara dolleeku ci kon ngoo kër doo fa yàgg aljanna nag moom mooy daaru xul bi mooy kërug faw xaalidina fiha abadan dañ fay sax ba faw ci xéewal yooyu ma wax léegi suñu borom yàlla nettali ko kon nag yooyu ñaari kër dañoo tollowul ginnaaw tollowuñu nag waroo yemale euh, coono ak jamono li ngay fare pour am kërug àllaaxira waroo koo yemale li ngay def pour am kërug adduna loolu moos xam ngeen ne mooy li xel moo tax suñu borom yàlla wax ci وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا منا يلا يلا جحت أي كتن يلا يلا جحت بخي أك من من يلا يلا جحت خم خم وتكو كروك الآخرة أبو آه، أمي كتن ولا مخل وتكو كروك الآخرة بو أمي تورت ولا ورد يرم وتكو كروك الآخرة كروك الآخرة موجرة يلا تكيننا بمتحن فاتة Eh, sa wàll ci àdduna ndax adduna da nga am wàll kon boog il faut nga toppatoo sa wàll woowu waaye li nga tolloog bu ko fàtte rek waaye itte ji moom yaa ngi ko war a jëmale ci wut kërug àllaaxira loolu la nu alquran wax moom la suñu borom yàlla wax te xam ngeen ni te loolu mooy li yenu maanaa boo dendalee wuut ak ñaari kër yi aha moo tax ma lay laabiire yow sama mbokk may déglu ma lay laabiire joxeel mboolem ñi nga war a joxe ci ittewoo ak ci farlute pour am kërug àllaaxira toppatoo sa kërug àllaaxira ne la gën a ñor fuuf toppatoo kërug adduna loolu daal maa ngi la koy laabiire gannaaw bu ma ko laabiire sama bopp am kër ci àllaaxira moo gën a ñor toppatoo ko moo gën a war moo gën a ñor ndax foofa fala dëkk fii ak gëti rek la ak gëti ku ne xam na ne kenn du fay dëkk des fay noor des fay nawet bu nawet bi jeexee nga dellu ca dëkk ba kon boog dëkk ba mooy àllaaxira yal nañu yàlla may ay kër foofe ci aljanna yal nañu yàlla may ay kër ci aljanna moo jare wut kër te nag kër googa boo seetee li la ko yàlla jaaye nga dendale ko ak melokaanu kër ga nga gis ne njëg gi yomb na lool njëg gi yomb na yomb na lool lool lool boo ko dendalee dendaleel <clears throat> kërug àllaaxira ak yi ma fi wax ci ay melokaan nga dendale ko ak yi ko yàlla jaaya nga gis ne kon njëg gi yomb na kon boog jógal wut sa kërug àllaaxira te bul fàtte kërug àllaaxira ndax adduna ju teew loolu mooy li may lay laabiire di ko laa laabiire képp kuy dégg kàddu bi aha hunalika fi lxayaati mawaasim yudaafu fiha ujuru l amal taamalu amalan fa su ko defee nag bu fekkee ne bi bàyyi nga xel loolu ba noppi ma di la jox beneen laabire beneen conseil te moo di am na ay marché ci àdduna ay marché àllaaxira am na ci àdduna marché àllaaxira mooy barab boo xam ne mbaa jamono joo xam ne boo fa nekkee dangay jëf lu tuuti yàlla fay la lu bare bare bare bari ay marché am na marché yoo xam ne yàlla da ciy ful jëf yi boo jëfee benn yàlla fulal lu ko lu bare bare bare bari yooyu marché buñ ca tolloo jënd kërug àllaaxira day gën a yomb te marché yooyee nag weeru koor ci la bokk marché yooyu itam fukki fan yi mujj ci weeru koor ci marché yi ci gën a am doole ci la bokk marché yi nga xam ne yomb naa wute kërug àllaaxira ndax boo defee benn ñu fay la lu ëpp juróom-ñaari téeméeri yoon mu ngoog boo joxee benn ñu delloo la lu ëpp juróom-ñaari téeméer delloo la loo xam ne mënoo xam xayma ja marché yooyu weeru koor da caa bokk loolu moo tax jibril alayhi salaam mos naa ñaan ñetti ñaan ñaan gu ci ne dam ko ñaane dana yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam neel amin yonent Yàlla Muhammad ne amin lu ngeen xam ci ñaan goo xam ne Jibril la ko ñaan sayyidina Muhammad ne amin sallallahu alayhi wa sallam boo ñaan dafa ngeen dina delloo déedéet boo ko ñaan du dellu boo ko ñaan boo sàgganee sax yàllaa ko ñaan lu ndax xam ngeen ñaan ko lu mu Jibril nee na képp koo xam ne dugg nga weeru koor ba génn te jaamuwoo ci yàlla lu tax yàlla jéggal la say bàkkaar yépp yàlla na nga torox dégg ngeen ko de ndaxte jaamu ci yàlla lu tax yàlla jéggal la say bàkkaar yépp dafa yomb dafa yomb lool waa weeru koor dafa barkeel soo góorgóorloo ba fii sa doole yem waaye nag ba fii sa doole yem waxuma nga ne ñisi ñisi daal na damaa sonn yilimaan ji taram bi daa yàgg man lii mënuma ko wala nga jàng ñetti xët ci kaamil bi daal dina naa naa bàyyi ba suba di waaj a ko waajaat ba koor gi nar a jeex amagoo ñetti kaamil amoo ñeenti kaamil te ñu baax na am na ci ñoom ñoo xam ne su weeru koor mosaa teru ñoom day ñetti fan yu ne ñu amub kaamil ñetti fan yu ne nga xam ne weer yu daañ ci am fukki kaamil yow nag seetal ba xam ñaata kaamil nga ama gon mu ngoog seetal loolu seetal ñaata rakkaa nga naa filaa gon seetal loolu mu ngoog bu ko defee nga xam ni kon boo nekkee ci biir weeru koor li nga xam ne moom lañ la ci sant ci ay jaamu yàlla loola mooy njëgu kërug aljanna te loo ci def lu tuut tuut yàlla day boole nangu ko ak ful ko yoon yu bare bare bare bare moo tax def ci weeru koor lu la yàlla jéggale def ci weeru koor lu tax yàlla dugal la ci yërmandeem jéggal la see bàkkaar yépp yomb na lool ba tax jibril ne ku dugg weeru koor ba génn te jaamu woo ci yàlla lu la yàlla wër lu la yàlla jéggale see bàkkaar yàlla na nga tas ka rek mu ngoog loolu jibril ñaan ko ne sayyidna muhammad ne amin sayyidna muhammad ne amin sallallahu alayhi wa sallam lam ca teg moo di képp koo xam ne <clears throat> tudd nañ la tudd nañ fa saw tur yow muhammad alayhi salaatu wa salaam te julliwuñu ci yow julliwul ci yow ñu nga dégg ñu tudd muhammad sallallahu alayhi wa sallam te julliwoo ci muhammad nee woo sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nga toskara yàlla na nga torox ah gaa ñu dégg loolu de mbaa amul ci yéen koo xam ne daana dégg turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te du julli ci moom ku ko daa def na ko ba loolu day waral nga dugg ci ñaan yàlla goo xam ne jibril alayhi salaam moo la ko ñaan yàlla yonent bi ne amin jibril bu ñaanee yonent bi ne amin xam ngeen ne day nongu ñaanum ñetteel ga mooy képp koo xam ne sa ñaari waajur wala kenn ci ñoom ñaar fekk nga seenu màggat te jëfaloo leen lu seral seen xol ba ñu dugal la aljanna yàlla na nga torox mu ngoog kon boo ko way jur daa foor fi yàlla subhanahu wa taala rawatina bu demee ba nekk mag soo taqoog moom fexe ba am ngërëmam bu la gërëmee yàlla gërëm la nga daal dem aljanna jibril nag ne ku sàggan ba gis kenn ci sa ñaari way mbaa ñoom ñaar ñëpp ñu nekk mag te nekkoon ñoom liggéeyal leen ba seen xol sedd ba tax ñu yóbbu la aljanna ku def kooku càggante daal yàlla na nga torox mu ngoog waaye nañ del si ci ñaan gu njëkk gi te mooy ku dugg ci weeru koor ba génn te jaamu ci yàlla lu la yàlla jéggale say bàkkaar yàlla na nga torox kon boog loolu mu ñu dal mukk nan góorgóorlu bu baax a baax aa bu ko defee weeru koor heure yi ci nekk yëpp heure bu ci ne marché la bu duul loolu maa ngi leen koy déey maa ngi leen di déey secret boo bi te moo di weeru koor waxtu wu ci ne ab marché la bu duul boo xam ne loo ci def ci jaamu yàlla lu mu tuut tuut yàlla fulal la ko ba mu rëy bari gudd ba mu gudd yaatu rëy bari lu mu néew néew weeru ko lépp nag marché ay marché la waaye fukki fan yu mujj yi nag ñoom ñoo ci rawati te ñoom li ngi waaj a ñëw kon boog kenn ku nekk ci yéen kenn ku nekk ci nun na jóg-jóg gu bees na fedd lig laxasaay na fas yéene balaa fukki fan yi mujjee jeex mu jënd ci kër ci aljanna yàlla na nu yàlla yombalal loolu yàlla na yàlla may tawfiqi loolu mu ngoog kon boog fukki fan yi mujj ci weeru koor mi ngi waaj a ñëw bu ñëwee ñun na nañ góorlu te xam ne mooy marché yi gën a duun ci marché yi fukki fan yu mujj yi ci weeru koor ci la weeru ci ci la guddik laylatul qadar nekk te itam mooy jamono ji gën a gaaw a nangu ñaan jamono yi gën a gaaw a nangu jaamu yàlla jamono yi gën a faral di fule ay jaamu yàlla loolu moo tax nu war cee bàyyi xel bu baax te maa ngi nii nag di la bëgg a waxal insha allah li ci yonent bi daan def sallallahu alayhi wa sallam li mu ci jàngal ci sunnaam soo ko déggee na nga bu dëgër yóbbaale ci kër ga boo demee wax nettali ko sa soxna nettali ko say doom nettali ko waa grand place ak say xarit ngeen fas yéene la ci sayidna muhammad daan def alayhi salaatu wassalaam ngeen def ko yal na yàlla may tawfiq loolu aha ci bukhari ak hadith nga ci bo xamne sayyiduna sunu yaay sunu yaay aisha radiyallahu anha yalna ko yàlla dolil la sunu yaay ju bax joji nga xamne yenen yonent yàlla muhammad dako beggon lol sallallahu alayhi wa sallam te lolou jarne bëgg ko nit ñëpp da la wara bëgg sunu yaay aisha sunu yaay aisha mo nga xamne lu bari ci diina ji mo ko jàngal ba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ni na ngeen jàng seen genn walu diine ci soxna su xees si mu ngoog muy sunu yaay Aïcha yal na yàlla fayal sunu yaay Aïcha jullit bu ne amel na ko ay ñaan jullit bu ne war na koo bëgg te maa ngi leen di xamal ne am na ci réew mi ñu koy saaga ak di ko xas ak di ko wax ay wax yu bon te ñooñu nag ñu ngi ubbi ay jàng yu alquran ci biir réew mi nee na ñooy dañuy jàngale alquran nee na ñooy dañuy jàngale diine te dañuy rëbb suñu yaay Aïcha ak di ko wax loo xam ne kuñ ko waxoon sa jaasi génn dara tuur li ñuy wax su ne ñoom ñu bon ñoo ñii kuñ ko waxan ci ñun sa ndey bal dina tàkk mbaa jaasi mbaa jaasi génn loolu la ñuy wax su ne Aïcha te nee na ñooy ay jiwit lañu nee na ñooy dañuy jàngale alquran képp koo ci xam ne ci sa doom ñu ngi ci daara joo xam ne ji daara kenn ci ñoo ñii la mbaa école boo xam ne école kenn ci ñoo ñii la feeboo daaw daw jëli ko bala moo dugg naari jahannam yóbbaale la ci سمي يا جباح جودي دي يا عائشة يلنا في يلا دلير يلقى في مرتبة حديث بيمي بقى وقت موقع نتلي نانا سوير كور مسار نيو بندما بفك فن يمجي دستي بو أكسى بفك فن يمجي بو أكسى ينتبي صلى الله عليه وسلم دادا وان جنة وإسرخ نام ما نام دوت جتك سخنا تفك فن يمجي ويروي ما يشد المئزر دوت نغا لم دف موي لكي توب te mooy fanaanee jaamu yàlla bu bët set donc tey itam da daan yee aw ay waa këram ay soxnaam gone yeeg mag ñeeg ñëpp lay yee ñëpp da leen set ñu jaamu yàlla kon boog loolu ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel fukki fan yi mujj yaa ngi bëgg a ñëw bu ñëwee ñun ñëpp nañ fexe ba li ci yonent yàlla Muhammad daan def alayhi salaatu wassalaam te mooy won gannaaw sox jigéen ak lu ci aju te jublu ci yàlla jublu gu mat sëkk guddi gi lépp daanaka da ko daan fanaane jaamu yàlla xam naa du ko jeexal ndax suñu Aïcha nee na nee na musuma gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jàpp ak guddi jaamu ko yàlla bu bët bu bët dara bisu ca nee na musta musu koo gis moom musta am nee na itam wàccee ab kaamil ci benn guddi nee na itam musu koo def mu ngoog kon boog kenn du wax ne danaa jaamu yàlla guddi gi lépp lépp waaye boog li ci ëpp day daana ko jaamu yàlla di naafila ak bi ak ak jàng alquran ci bir julli amna ci guddi go xamne ne gii fa neena yenen ci yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kabbar fa kabbar bi nafila neena dal daal di ta daal tari fatiha bam ag mu tàmbali alif laam mim dalika kitab baqara baqara di tari di tari di tari di tari ma a ah nga bu amé bu amé nisif dana dana rukkoo moy tari ba nisib bi ag mu continuer mana xana bu xisib bi jeexee dina ko xisib ba jeex mu continuer dal benen mana xana benen xisib bi ci top moy mu koy def diko def ba baqara di waja jeex mana xana bok su baqara jeexee mom la budda day rukkoo ko na baqara jeex yenen yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dal daal di songu ali imran al imran di tari di tari di tari di tari ba saar wa jeex musa songu nisaa yi ñetti sar ci ñaari rakkat ba mu ne assalaamu aleykum bilaal daa salaat ñaar rakka guddi gi lépp loolu dañuy wan ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam da daa yokk lim daan jaamu yàlla ci fukki fan yi mujj ci ci weeru koor mu ngoog guddi ak bëccëg rawat na guddi yi moo tax axya layla mooy da daa fanaane jaamu yàlla ci guddi gi te itam da daa wan gannaaw ay soxnaam te itam da daa yee njaboot gi góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp mu julli loo leen ñëpp yooyu la yonent bi daan def sallallahu alayhi wa sallam kon boog ñun ñëpp nañ fexe ba def loolu yi yal nañ ci yàlla dimbali te itam yonent bu daa def ñett yooyu daaw ci yem xam ngeen ni da ko daa boole la ko jiitu woon ci ci weeru koor li ci njàngam alquran mu bari ci naafila tarawih ak ci zikr ak lépp ak joxe yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa tabe naka jekk xana bindam la ku mën a joxe la dafaa joxe joxe wi nu koo xam ne ki da nga naan kii moom xanaa ragalul ne lii mu yor dina jeex te kon du amati day joxe rek bu joxe day xëpp rek day dolli rek waaye nag weeru koor ma saa ñëw moom tabe ji day yokk day mel ne ngelaw ngelaw lu ubbi mu ngoog wante bu fukki fan yi mujj yi ma saa ñëw day boole yi mu daan def ci diggante joxe ak naafila ak njàngum alquran ak ak ñett yu nu wax léegi. te boo seetloo ñett yépp gis ne li muy tekki rek mooy yokk jaamu yàlla kon boo ci gàttal fukki fan yu mujj ci weeru koor mi ngi ñëw daanaka agsi na nanu yokk li ñu doon jaamu yàlla te sax bu nu xaar ba fukki fan yi nan ko tàmbali léegi nan tàmbali léegi yokk li doon jaamu yàlla ci weeru koor yokk liñ ci jàng ci alquran yokk liñ ci naafila ci ay rakka yokk liñ ci qiyaam ci njël te itam dinaa leen laa biire li nga xam moom la naafila fii di tarawiix bu mu tee bu njëlee ku yeewu balaa ñoo préparé xëdd bi lu fa xaj ci ay rakka def ko fa bu ko xeet bu fekkee safa witron nga safa witr bi moom doo ko defaat benn yoon la ñuy safa witr waaye nag bul ne mu ko witroon naa du ma julliwaat ah kay julli loo mën a julli ci ay rakka balaa xëdd bee jot balaa kii nodd nodd xëdd xëdd nodd nga nga xiyaam loolu moo la ñuy wax xiyaam yal nañu ci yàlla dimbali bu ko defee fukki fan yu mujj yooyu na nga xam ne fukki fani jaamu yokk jaamu yàlla la na nga moytu fukki fan yooyu guddi yi nga di ko jeexal ci seetaan ay télévision déglu ay théâtre wala nga di ko jeexal ci lekk ay ndogu yu bari ay ndogu yu bare bare bare bari mos lii mos lee mos lee lu ne nga lekk ko ba day mujj daal da ngay nelaw rek ndax biir bu diis ak yaram bu diis lekk gu bari loolu bu ko def mukk ci yenn jamono ci weeru koor rawatina fukki fan yu mujj yi te itam guddi yow bu ko def guddi ay ndog yu bari wala guddi seetaan ay film ak télévision waa waaye itam bu ko def guddi waxtaan ak sa njaboot di di di kafakale ba guddi gi màggat du ngeen jaam weer bu ko def loolu bu def loolu mukk julli ci loo mën a julli jàng ci alquran loo mën a jàng alquran bëccëg itam joxe ci yàlla ngir yàlla loo mën a joxe te itam boo dee julli ci fukki fan yi mujj ci weeru koor bul julli bàyyi sa soxna mu tëdd wala say doom doonte doom yi ndaw lañu nee leen jóg leen julli sa soxna yee ko mu julli ngeen bokk julli loolu la yonent bi daan def sallallahu alayhi wa sallam aha jàngalal sa njaboot ne leen guddi yii dee sa war a yokk liñ ci jaamu yàlla wax ko sa soxna wax ko say doom wax ko say waa kër yonent bi loolu la daa def daa def bu weeru koor bu ci fukki fa yu mu yi defee mu daal di gën a dëgëral ak laxasaayam daal di won gannaaw lal baat soxna say jublu ci yàlla jublu bu wóor a wóor ah loolu nag na ko def yow itam ndax yàlla yàlla boole la ci ñi muy dugal ci yërmandeem yàlla na yàlla dugal ci yërmandeem na nga def lépp loo man bu ci xeeb dara lu mu tuut tuut bul xeeb lu mu bari bari bul yéem ndax yàlla boole la ci ña muy jéggal yàlla nañu yàlla boole ci ña muy jéggal loo ci man lu mu tuut tuut bul xeet lu mu bari bari bul yéem defal ndax nga bokk ci ñi yàlla di goreel ci naari jahannama yàlla nañu yàlla boole ci ñi muy goreel ci naari jahannama ngoreel goo xam ne di duut ni topp dara mukk gannaaw bi yàlla nañu ko yàlla boole defal la ca topp mooy na nga làmbatu guddik laylatul qadar ci fukki fan yu mujj ci guddi yu tool yi لول سيدنا محمد وخ صلى الله عليه وسلم يلان تي الله محمد وخنا تي حديث بو خامني بخاري مكو صلى من ليلة القدر دي لين كو لامبوت تي فك فان يو مودي تي بودي تولي لول لمي تكي موي يلان تي محمد صلى الله عليه وسلم خمول بيس بي مبا بو كو خاميت واخوكو نينا نان كو لامبوت لي غاي لامبوت دا غاي خمول فمو نه نينا نك بون كاي لامبوت نان كو لامبوت تي فك فان يو مودي ci guddi yu tool guddi yu tool yi mooy guddik nit ak benn mu guddi guddik nit ak benn ak guddik nit ak ñett ak guddik nit ak juróom ak guddik nit ak juróom ñaar loolu mooy guddi yu tool yi nañ ci làmbatu laylatul xadar nuñ ko ciy làmbatoo xanaa da ngay jàpp ne guddi gii mooy laylatul xadar rek genn gu nekk ci ñetti guddi ci guddi yu tool yooyu jàppal ne mooy lu xadar la nga nar ko na def boo xamoon laylatul xadar nga def ko ca te ñaan yàlla muy moom te fas yéene def ko ci guddi tool yi yëpp loolu nag liñ ci war a def nag mooy la ci yonent Yàlla Muhammad daan def alayhi salaatu wasalaam bul ci woote muk mukk mukk ak gàmmu bul ci bâche mukk bul ci tànt bul ci woo mukk invité ay nit naan da ngay da ngay invité da ngay da ngay togg ay ganaar rek da ngay loolu am folo guddik laytul qadar guddik jaamu yàlla la guddik ñaan la guddik jéggulu yàlla la guddik ñaan ko say soxlay àdduna ak yooyu la waaye du guddik mukk taaj ay ñam naa da lekk wala taaj ay ban indi ay baas taal ay lamp ay góor jigéen di dajaloo nga naan da ngay gam loolu ay bidaa la gis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa jàngale mooy loolu yi mu daan def mooy dundal guddi gi ci njàngum alquran ci biir julli dundal guddi gi naafila ak tarawih dundal ko guddi gi ak bëccëg bi ci joxe ak jaamu yàlla ca jàkka ji ak ci këram loolu bokk nañ ci bàyyi xel bu baax te bàyyi te góorgóorlu ci bu baax yàlla na yàlla dimbali ci ñu def ko ni mu war a te yàlla nangul aha leneen li nga xam ne sunna la soo xam ne léegi ñu bari xamatuñ ko sax mooy li ñuy wax i'tikaaf i'tikaaf yonent yàlla muhammad da daa def sallallahu alayhi wa sallam da daa def bu bu fukki fan yi mujj ñëwee ci weeru koor mu def i'tikaaf fukki fan yooyu yëpp i'tikaaf mooy lan i'tikaaf moy nga dem ca jakka ja sax fa diir bi nga fa bëgg sax te sax fa jaamu yalla lool moy i'tikaaf i'tikaaf moy nga dem ci jakka ja am fa nangami fan wala nangami waxtu yo xamne da nga fay jaamu bo sonne sonnee bo boo ko ni wat jaamu yalla julli jangum alquran zikr nak dal di jaamu yalla wetak sa borom yalla mu ngok nangami fan wala nangami heure loolu moy i'tikaaf loolu nak sunna la soo xam xamatuñ ko itikaaf kenn du ko defe ci kër ci jàkka lañu koy defe mu ngoog te itam boo ko tàmbalee doo ko dagg mukk te àggul boo ko daggee mu yàqu boo ko daggee yàqu na moo tax boo ko tàmbalee day àgg rek loolu moo tax euh, euh, euh, ma di ko fàttali képp koo ci xam ne kii bu fukki fan yi mujj yi ñëwee mën ngaa ñëw ci jàkka yi sax fi li nga fi mën a sax moo xam fukki fan la fukki fan yi yëpp wala juróom-ñeent yi wala juróom-ñett yi wala ñetti fan yi wala sax benn fan bi loo man wala soo mënul ab fan sax nga ñëw am fi ay heure ndax ci kaaf bu ceegonu faaw mat ay fan déedéet man naa doon ay waxtu mën ngaa ñëw ci jàkka ji ci kaw yéene itikaaf am ci fanweeri minute dong muy itikaaf waaye nag kenn ku nekk koo xam ne kii am nga possibilité mën a itikaaf fexeel ba def ko te xam ne sunna la soo xam ne sayyidina Muhammad da ko daan def sallallahu alayhi wa sallam te lu bare bare ci xeet yu léegi fàtte nañ ko xamatuñ ko fa sax yal na yàlla jégge yooyu bàkkaar aha suñ borom yàlla noo ngi lay jégglu di la tuubal di la toroxlul di nangu ne ka jub mooy ka nga mayum jub noo ngi lay ñaan yàlla nga mayum jub suñ borom yàlla noo ngi nangu ne ka am tawfiq mooy ka nga ko may yàlla nga may tawfiq suñ noo ngi jégglu suñuy bàkkaar di la ñaan nga baal suñuy bàkkaar yépp yu jëkk yi ak yu mujj yi yu mag yi ak yu ndaw yi ngi lay ñaan nga boole nu ci ñi ngay goreel ci naari jahannam ci wi weer goreel goo xam ne gii dootoo ñu topp dara gannaaw bi ak lu suñu dund yàgg yàgg te yal nag nu may bu àllaaxira ñu bokk bokk ci ñuy dëkk këri aljanna ci fi ramada sa baax sa mbaax yal nag nu may tawfiq li des ci weeru weeru koor wi nu jaamu ko yàlla jaamu yàlla gu rafet goo nangu lépp dëppoog sunna sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam suñu aajo yëpp nga fajal nu ko ci fi yow mi nga xam ne yaa yor lépp te yaa moom lépp te yaa man lépp te doye woo dara dara yow kese yaa ki nga xam ne kii am nga lépp mën nga lépp sañ nga lépp te soxla woo dara ku dul yow soxla na lu ne te amul tus te munul tus noo ngi jéggul jébbulu ci yow di sukk di raam di la jéggulu di la ñaan nga baal na sunuy bàkkaar fajal na sunuy aajo may nu aljanna wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu